mbir ya nag daal ne gën a takkarnaa ci si seen uh, diggante uh, mairie bu Ziguinchor daal di sax bañ moom Ousmane Sonko sax daal leen di nag uh, lànkal Euh, ñoom ñi nga xam ne étudiants yi basé fii ci Dakar te nag li euh, mu décidé mooy dafay rompre contrat logement euh, boobule benn conférence de presse dañ ko xamle moom adjoint au maire bu Ziguinchor yor jeunesse et secrétariat municipal daal di nag wax ci décision bu conseil municipal bi concerné menace de déguerpissement yu étudiants yu Ziguinchor yi basé wu ci dakaar ñoom ñi daal di xamle ni mairie bu Ziguinchor dafa décidé ne du renouveler contrat bi nga xamante ni moom la signé woon ak bailleur bu immeuble bi nga xamante ni nag moom la étudiant yooyu doon loger nekk étudiant ressortissant yu Ziguinchor fii ci Ndakaaru euh, ci mois de novembre bi ñu daal di nag euh, jëm euh, ci nag à la place mairie bi décidé na la la muy def nag mooy daal di nag arrêté contrat boobu waaye dina leen octroyer ay bourse ñoom étudiants yi lee mais avant ñuy joxe boobu le xibaar sa Bassirou Koli daal di ñëw ci ay précisions concernant mbir moom nee na nag lépp luy ay accusations yi lépp li ñuy wax ci accusation amut du euh, euh, leru benn dëgg boo xam ne nag wax nañu ko amut benn bor boo xamante ni nag mairie bi am na ko ak euh, naki moom boobule immeuble googe mairie bi soldé na paiement bu logement bi facture bi demoon ci juillet ba jàpp décembre deux mille vingt et un étudiants yi daal di déclaré ne nag sous Fonsabelle Euh, eh bien nag daal di nañu acquitté nag boobule xaalis bailleur bi euh, fournir na itam ay documents nécessaires euh, ngir ñu daal di am perception ngir nag frais de location yi jëm ci janvier jàpp juin deux mille vingt deux itam ñu daal di koy nag fay bu ñu sukkandikoo ci adjoint au maire bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllum nag. Euh, jeunesse euh, foofee nag ca mairie bu euh, Ziguinchor Bassirou Koli mentionné itam ne étudiants yi di réclamer cinq millions mairie bi pour rembourser amicale bi adjoint au maire bi di sàkku ci étudiants yi ne nañu éviter di nag bàyyi ñu leen di manipuler ci nag élection yi nga xam ne moom la ñu daal di nag jëm ndax euh, politiciens yi lépp nag moom mooy yile élection moo tax ñuy daal di nag chantage xale yi di leen manipuler euh, moom itam ne nag euh, lii du jàll bu fekkee da ngeen bëgg daal di nekk di intimider mairie bi mairie bi du seede benn ñoom ci benn chantage ak bu ci mën ci doon ñoom noppee nañ ngir daal di nag jëflante ndax ci seen droit la ñu nekk secrétaire municipal ba di seeni Mané moom euh, ne euh, nag euh, dañuy renforcer ba conforter itam adjoint au maire ba ci propos yi daal di ne nag mairie bu Ziguinchor amul benn facture boo xamante ne nag am na ko ci bailleur bi kon loole lépp ay kàcc yoo xamante ni nag moom la ñu jël te bëgguñu dara lu dul taqal deru Ousmane ak di ko chantage ndax élection yii di ñëw te am na ñu nekk seen ginnaaw ñoom xam nañu ko waaye nag mairie bi du ci sedde benn yoon.